waaw ku fi dem d' abord euh, euh, ci man déjà nijaay la. Mhm. donc euh, maa ngi koy jaale d' abord askanu Sénégal parce que c' une grosse perte pour le Sénégal di ko jaale à sa famille biologique di ko jaale suma mag Moustapha si ak ñoom ñaaña si ñoom ñëpp ñu ngi leen di ko jaale et di ko jaale tamit au monde sportif c' est un homme qui a beaucoup fait pour le sport sénégalais c' un homme qui a beaucoup fait pour la ville de Dakar il fut conseiller municipal. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, il fut ministre de la République. Donc nous présentons nos sincères condoléances et prions pour le repos éternel de son âme.